ki fi yor cër ak i dogal ami sañ ci diine te yënguwul may Ababakar ki fi ak i dogal ci diine te yënguwul moo mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moo kooku may Ababakar mbir mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moo kooku may Ababakar mbir mi kenn lëkkaalewul ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa man bay na samaawaat ki mu doon moom kooku mooy Ababacar xalifa man bay na al arde ki mu doon moom kooku mooy Ababacar doon du Maodo doon di Cheikh soga dem kooku mooy Ababacar inna allaha la yuslih amal al mufsidin ay al mufsidu yudaadu allaha fi'luhu fa innahu yafsudu wallahu taala yataxarra fi jamii afaalihi silah fa huwa idan la yuslihu amaluhu wa qad kurira kalimatu lislaax walsalaaha fi lqur'ani aksara min miati wa samanina marra wa hiya tarabatu irtibadan wa saqiyan bil iman allazi huwa asaasa mahabara bil fasada wa maqawamat almuxtiyat wa ittisaasa asluhu faqad wasala alqur'an karim bil fasaadi ihtimaadi taaddudin aliha is law kaana taaddudu waaqian la fasada nizaam al ard wa samaai law kaana fihima alihatan ila allahi la fasadata sadaqa allahu al azim wa yatahaddasu al quran an nabiyina al huud alayhi salaam allazi daa ila ibadati allahi wahdahu wallazi jaa fi qutbihi li qawlihi taala in uridu ila al islaaha ma stataxtum wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi l-unib wa daraja al-qur'an ala rabti bayna al-iman wa amala salihan fi kasiri min ayati al-qur'an kama qala qawluhu taala inna alladina amanu wa amilu salihati yahdihum rabbukum bi imanihim tajri min tahtiha al-anharu fi jannati naim wa li qawlihi taala inna alladina amanu wa amilu salihati jannatun nuzulan khalidina fiha laa yabxuuna an anha xiwala wa li qawlihi taala waada allahu alladina aamanu minkum wa amilu salihat la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim wa li yumakkinannahum lahum diinahum alladi irtada lahum wa li yubaddilannahum min baadi xawfihi amnan wa innama yataxaddasu alquran an alladina yacmaluuna alsalihat wa yaxbiru an waada allahu lahum bilxufra fi zunub watti wattinaabi wa bi ijnaabi allati aradaha samawaati wa ajran azim wa yaati asxaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l atilati allazina yafuuzuuna bi qawlihi waxdil karim allazina kafaru wa dallu an sabilillahi abdala ahmaluhum wallazina amanu wa amilu salihat wa aminu bima nazala ala muhammadin wa huwa xaqu min rabbihim kafara anhum sayi'atihim wa aslaha baalahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allazi jaa bil ayaati wal qur'ani al hakim wa radiyallahu an cheikhina wa ustaazina wa wasilatina ila rabbina abil abbas ahmad ibnu mohammad assalimi tijani radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi amin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp si turu kilifa gu tedd gi sëriñ Mouhamad al Habib Kandji di xalifa maam Thierno Kandji di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal ko sunu kanam yal yàlla yokk ko wér ak mbooleem ay rakkam di ñaanal yàlla lim yéen liggéeyal maamam Thierno Kandji bëgg koo liggéeyal islaam yal na ko yàlla kàttanal ba mu liggéey ko at ba ah, liggéey ko ak sago te ànd ak jàmm ak sutura noonu lañuy ñuy ziyaare suñu papa Pape Thierno Kandji Baye Daara ak mbooleem njaboot gi fa tabarakallahu Baye Samba wax na teraanga jim indil sëriñ bi bii rek du c'est la première fois chaque année noonu la koy defee kon yàlla yàlla fay ko si barke yonent bi yàlla ko yàlla fay si barke Cheikh Namada Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ah mbooloo mi ko guddee doo guddal te sunu discours tey ñu ngi ko def al islaahu bayna zaat te mooy liy yéwénal diggante jullit ak moromu jullitam danu wax ne jullit ak moroomu jullitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni laa yuhib laa laa yuminu ahadukum xataa yuhibbu li axihi maa yuhibbu li yonent sa sallallahu alayhi wa nee na benn jullit ak ngëmam du mat tànk la nga bëgg sa bopp bëggaloo ko sa moroomu jullit kon jullit lépp lu mu yéene boppam rek da koy yéene moroomu jullitam su boobaa la ak ay njullitam di fat kon ñu déggee si ne kenn ku si nekk fi ñu toll war ngaa yéene sa moroom li nga xam ni mooy jàmm yéene sa moroom li nga xam ni mooy teraanga ndax fan yi ñu génn ñun ñëpp tiit si li nga xam ni moom la yàlla wàccee si jamono te mooy jàngoro coronavirus coronavirus waaw waaw dama ko ragal ba bëgguma ko sax xam tur yàlla yàlla musal nu si ah, mu mel ni ku si nekk nag am nga si responsabilité pour ñaan yàlla mu musal nu rawatina sëriñ si nga xam ne moom la ñu yaakaar ndax dañoo wax ne wa taqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaassa nañ moytu fitna mu nga xam ne fitna bi nga xam ni bu wàccee du yem si bopp ay si bopp borom kese mu mel ni fam feeñee sori na waaye ma ngay law di dem yenn saa yi ñu dégg ko France yenn saa yi ñu dégg ko Italie yenn saa yi ñu dégg ko Nigéria waaye lu si mënti xawit ñi ngi ñëpp a war a ñaan ñaan yàlla yàlla yàlla musal ñu si dafa am ko ma mës laaj si benn question ne ma coronavirus boobu lan ngeen si xalaat ñu war ko ko xeexee ma ne ko ñun de yoruñu ay ngànnaay yu ñu ko war a xeexee waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni mu'mini ñaan moom mooy ngànnaayu jullit te ma ne ko buñ gistoo histoire tuuti rek buñ gëstoo histoire tuuti rek daañ fekk si siira yonent bi sallallahu ne mës naa wàcc madinatul munawwara épidémie mës naa wàcc madinatul munawwara waaye lan la ko yonent bi sallallahu alayhi fajee woon lan la ko dàqee woon suñ maam Seydi Hadji Malick wax na am أما الوباء من دعاء البدر منتقلا عن المدينة نحو الجفة العدمي Imam Seydi Hadji Malick nee na épidémie bi mës a feeñ Medinatul Munawwara bi yonent bi gàddaayee yonent bi lenn rek la ko feexee woon te mooy ñaan kon ñun ñëpp dañoo war a taxaw ñaan te xam ni jaamu yàlla la waaye soldaaru yonent bi la ma ne li si gën a yéeme nag mooy pour ñu xam ne dal na la wala dalu la faaw ñu mettre la quarantaine 14 jours te 14 jours yooyu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd feebar awaa yattan inda baxdi fii tuxab bi fii xaana raxiilu fii yawmihi l-alami kon loolu day firnde feebar bi jàngoro yonent jàngoro la waaye soldaaru yonent bi la jaamuk yàlla la buñ waxtaanee ak yàlla yàlla mën na ko delloo fa mu ko jëlee woon kon yàlla ko yàlla delloo fa mu ko jëlee woon mu bañ a lor kenn fa tabarakallahu fam feen yàlla yàlla fay ko ak mboolem gox yi di profité di wax sëriñ bi na dolli ñaan ndax njaboot gi newoon Italie tabarakallahu njaboot gi newoon Italie fas yéene woon ñëw gunge sëriñ bi si gàmm gi yàlla dafa dogal dañoo mujj annulé seen vol ngir li nga xam ne mooy feebar bi kon fa tabaarakallaahu ku nekk war nga ñaan yàlla yàlla yàlla musal ñu si yàlla na ko yàlla yeetalaat tegaat ko fa mu nekkoon. ah mu mel ni sëriñ bi gouverneur de la région jàppoon na CRD ngir gàmmu maam Thierno Kandji waaye fa tabaarakallaahu lam waxoon nag ñun yëpp fa tabaarakallaahu dem na si ba lam ñuy ñu waxoon lépp def na ko kon fa tabaarakallaahu moom gouverneur ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal ndax ndax wax dëgg fa yàlla sawarte la si àndal. ak mbégte kon fa tabaarakallaahu yàlla yàlla dëgëral ko biñ defee CRD ba pare évaluation bi ñu boole préfet Ibrahima Fall moom it mu taxaw si taxawaay boo am solo kon yàlla yàlla dëgëral ko yàlla yàlla jàppale ko ah fa tabaarakallaahu maire de la commune délégation ñëw na suñu bàyyi Aliou Faye ak ñi nga xam ni ñoom la àndal ñoom it ñu ngi leen dalal jàmm moom it yëkkati na ay teraanga yónnee sëriñ bi ah fa tabaarakallaahu mu mel ni chef de service yi nga xam ànd nañoo préfet kenn ku si nekk la nga waxoon ci CRD bi dem nga si ba sa kàttan mën nit ki nag booy wax la ngay yéene ngay wax waaye lu ngay booy jëf ba sa doole toll rek ngay jëf kon fa tabaarakallaahu liñ jëf rek yàlla na yàlla nangu ko yàlla yàlla dolli sutura yàlla na yàlla dolli teraanga ah mu mel ni délégation yi teew si bés bi sëriñ bi bëri na waaye dañu siy tuddal ñenn rek ñi si des fa tabaarakallaahu boo ñu leen tudd lit sëriñ baa ngi leen di ñaanal si biir xolam délégation imam Maodo Silla bu Dakar ku ñuy wax sëriñ Assane Sylla moo ko jiite ñu ñëw teew si turu ñëw teewal euh, si di ay kóllëre suñu bàyyi alhaaji Gajaga suñu bàyyi Idrissa Gaye gay tabarakallahu mi ngi ne teew ànd ak suñu bàyyi bi sàll ànd ak seen kilifa ci imam as mbaro ñu ñëw teewal fi sëriñ Muniru Njëgën yal na yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko fa tabarakallahu suñu bàyyi Mbàkke Tànja di xalifa maam Mbàkke Tànja mi ngi teew ñëw na ñu koy nuyu di ko ziar sëñ Omar ak sëñ baay dañoo am gànt waaye fa tabarakallahu teewal na leen délégation ministre Dame Diop fa tabarakallahu yónnee bi ay teraanga euh, defe naa chef de cabinet mi ngi ne toog ak délégation bi mu àndal sëriñ bi Fall ñi ngi lay daral ak mboolem ñi nga xam ne moom la fi daam jabal euh, délégation suñu bàjjen Aminta Tall fa tabarakallahu ñi ngi ne toog mën nañ see arrestation ni mu war a comporté woo ci kanamu njabootam nga génne ko ci waxu yàlla fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fassan xalisal xalbi kon su boobaa lan fadoo min xawlik mu mel ni Seydina Muhammad daf na yàlla jeexil nga samay problème waaye yaa may solution mu ne ko nag faafu am mu ne ko rek mu ne ko déedéet. wastaxfir lahu mu ne ko ak loolu rek mu ne ko déedéet wa shaawirhum fil amri fa izaa azamta nag fa tawakkal ala Allah. yàlla moo ne Seydina Muhammad ci xéewal rëy bu ko ci yàlla ci la sa jikko rafete ba nga mën a jëflante ku ne. te du ngeen lu jafe. lu jafe mu ne ko boo siisoon baa nga xat baa nga fiir kenn du la jege waaye nag jëlal say responsabilité buñ juumee ci sa côté faafu am moom jéggal leen laa ilaaha illallaah noonu ba ci njaboot gi xale yu ndaw yi sax ñi toll ci école primaire ak ci bi bijjantu ci daara ji dañoo itteewoo bis bi am na nu doon demee tabarakallahu ñëpp duñu du waaye ndokk yàlla kon nag tey njaboot ji lay ñaax tey njaboot ji lay ñaax wallazina amanu wa tabaathum zuriyatuhum bi imaanin bi bihim suriyaatihim wa maa alatnaahum min amalihim min cheyin képp koo xam ne dangaa ñëw fekk sa kilifa ci aw yoon mu am ca pas-pas di ca góorgóorlu ba am maratib yu kawe yow miy njaboot nga ñëw roy ko ca pas-pas ba waxul ca jëf ja de waxul ca jëf ji bu fekkee ne kenn ku nekk sa kilifa fam tollu da nga war a jëf ba egg fa dugal waaye boo boo bëggee lim ne rek yàlla yéege na la ci martabaam donte jëfagoo waaw suñu wayjur alxaaji abdul aziz toog nañu mu waxtaan ci aaya bii mu ne mbokk yi foofu ñuy wooye allocation familiale xale bi xas ba am ñetti weer mën nay fayeeku bu dee norme yi war a am ci këyitu sëy ya am na xale boobu feragut jàngagut ba pare di fayeeku lu ko ko may sant wi mu sant santu baayam mu ne bis bu ndey ji meree baay bi ba dindi santu xale boobu ci turu baay bi bu demee foofu di fayeeku xamu ñu muy waxal fas yéene laa yow nañ ma baal nag ndax séen naa leen fi xam nga kii yeew boppam ba noppi su la waxee danaa la yeew waroo ca def xel ñaar kon ginnaaw kilifa gi def ne li ko war njaboot gi nañ def li leen war foofu rek la bëgg a wax tabarakallahu di ko ñaanal yàlla ndax ku ko duut baaraam ñu wax ak yow kon bu ko yàlla dimbalee ba muy jaarandi yoon nañ ko xamal ne ko fi jaar yoon la waaye ñaanal ko yàlla ni dafa dee fa tabarakallahu kon kër gi lépp ngi fi nañ ko exploité boo ko defee bañ ko exploité rek muy njëriñ loo xam ne mën naa egg fu kenn dul foofu ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp xàq di baalu ñëpp xàq e, ndax cofeel dafa métti xamoon na cofeel moo gën a metti mbayal bokkul ni ko bësëri yu waxee daf na cofeel dafa mel ni safara woo sotti ci furne lu muy jural weñ ga da koy lekk dee lekk weñ gi ba mu ñor boo ko mun naa mu jóoru waaw ah, tabarakallaahu jàng na xasi jàng na bayit bi waaye loolu taxu maa jóg eh, fa fa fa tabarakallaahu kon cofeel moo gën a metti noonoon ndax nooneel bu la bu la naree sonal nga tuxu waaye cofeel nag moom mën na laa mën na laa yàqal lu bare bare bare bare maam maam Abdou Cissé bu jaamal moo ko maam Cerno Kanji doomu yëkk lañu ak doomu wëllu noonu lañu demee de doomu yëkk lañu ak doomu wëllu moom ñu ngi ko tudde bàyyi maam Thierno fa tabarakallahu dafa toogoon ñuy waxtaan am benn waaye bu ñu sànni bañ toogee ba jataay ba tef ñu ñibbi waa ji am ko la moom nu ko yow di mën am jomm boo toogatee ci yenn jotaay nga téye sa làmmiñ wii mënu ko xee yéen fañ leen a nopp nag fa nobe seeta rek yéen fañ leen a nopp moo tax bu ñu leen gisut dañ leen di luñutu man nag fa ma nobe su ma gisut ki ma nob rek damay feebar ca suba sa moo fa jiitu ci jataay ba cofeel noonu la toll ngeen baal ñu xàq ja'alana allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu wa salaamu aleykum wa wa barakaatuhu réew bi sëñ Habib di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko lool suñu kanam te ànd koog wér ak njabootu maam Thierno bépp ak rakkam bi ak i rakkam yëpp ak bàyyi daara moom it di ko ñaan yàlla sunu borom kàttanal ko dëgëral ko di nuyu tamit sañu ñi nga xam tam ñoo fi nekk yëpp di ay chef religieux ak euh, bàyyeekoo ci kër yi nga xam ñoom ñëpp suñu sang lañu ah ci nduyu bi di nuyu nag sëñ Mahfous Mbacké bi nga xam ne ñëw na ah di nuyu tamit euh, délégation sëñ Ibrahima Fall kër yëlli di nuyu sëñ Afis moom euh, sëñ ma sëñ Makhoudia Sène di nuyu sëñ Baye Thierno Djigo gis naa leen fi léegi di gis di nuyu nag ñi nga xam ñoom ñoo fi nekkal yëpp teewal fi këru diine yi di imaam yi di sëriñ si di ñëpp kenn ku ne jox naa ko ci turam ak wàccaar ñoom ñëpp ndax bu ma leen bëggee lim dafa guddi te ñoom ñëpp vraiment bu ma nuyoo rek nuyu naa ñëpp di leen gërëm di leen sant seen teewaay. di nuyu nag monsieur le gouverneur de la région de Diourbel vraiment ci ñoom ak teewaayam euh, ak délégation bi mu àndal monsieur le préfet ak chef de service yëpp. di la xamal ne monsieur le gouverneur monsieur le préfet mu ngi ànd ak ñun du liggéey liggéey bu rafet ci dëkk bi di nuyu tamit ñi nga xam ni tey jii aujourd'hui ñu ngi fi nekk vraiment di ay délégation ñu yore ay mouvement ñu yore parti politique kenn ku ne di ko nuyu nag kenn ku nekk ci turam ak santam ndax tey fii ma toog jël parole di wax kenn ku nekk ci ñoom mënoon na fee jël parole di wax yàlla rek moo tax tey jii ma yore micro bi ba léegi keneen ci ñoom ci biir loolu di délégation ministre Dame ak délégation bi nga xam ne moom indi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci trom ak santam ma di ko nduyu di ko jox wàccaayam di nduyu aussi mon mon frère et ami Moustapha Gueye DG Crous di la bu baax di la ñaanal yàlla yàgg ñi nga àndal ak liggéey bu ngay rafet di ko liggéey yëpp yàlla na si borom jàppale kàttanal la ndax njaareem li mu am année yi yombul ndax tey ñun ñëpp yàlla moo def tey ñu jiite dëkk bi ñeneen a ko jiite woon tey ñun la suba ñeneen nañ ko jiite waaye ku waxal yàlla rek xam ne kenn ku nekk tey si ñun ñu ngi def lu mu mën moo demee Dame Diop mu ngi sam ci formation yi mu ngi jël ay directeur lépp mu ngi koy def yaa jaaram gis ne ko ñu ngi leen di sant seen tur Moustapha Gueye ku ko gis xam ne lu mu jël ci ay xale ñu du leen ñu leen du leen jël ñu leen jël ñuy dem di liggéey ci Thiès di liggéey ci course njaaram gis nañ ko ci tur waa njaaram ñu lay sant DG ndax nit bu defee lu baax wax ko dara newu ci loolu amul benn solo ñii mën nañu far fii far fii waaye li ñu bokk mooy njaaram kenn mënu ko xam ñaar yal neen yàlla jàppal kat na leen te li ngeen nekk ngeen nekk ci rek ndax askan wi moo ñu fi bàyyi ñun ñëpp kenn ku liggéey ci askan dina ko gis di nuyu tamit euh, euh, Sayer Diop gis naa délégation euh, ñoom jigaan ñëw nañu di jël tamit mu tegal ma loxo bi suñu yaay suñu lépp Aminata Tall du ko ñaanal yàlla moom yàlla na ko yàlla jàppale. di nuyu tamit jaaritu euh, Sarr gis naa ko léegi ci tribune bi ma ñëw na di nuyu tamit délégation Sonko di nuyu opposition bi parce que Sénégal ñëpp ñoo ko bokk maire nag maire ñëpp la buy nuyu na nuyu bu nuyoo pouvoir na nuyu tam opposition dara new kon ñu ngi nuyu opposition bépp ak seen délégation di di di nuyu tamit comité d'organisation bi ci liggéey. mu ne lay waxal. Serigne Baye Mbacké Tandian mii lay waxal maam Cheikh Ibra Fall mii lay waxal ndax Cheikhul Khadim dani fa kullu wirdin yuridal murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al-Jaylani aw intama li Ahmad at-Tijani aw li siwahuma min al-aqtab id kulluhum xataan ala tawaab Baye Serigne Saliou Mbacké Baye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Baye Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké maamu Cheikh Mountakha moo wax lii kon waxuma ci wàllu tarixa doomi soxla yëpp dañu dajale seen kàddu li ci seen ñu ne ma jéem a la dabb sunu xol nga waxal ñu ci bu baax bii kon lu manqué Idrissa Gay la Cheikh Sidi Moukhtar Kounta di tur Cheikh Abdoul Khadir Cheylani maam xalifa mii di sutuma Abdoulaye Niass maamam anta lil kawni bahjatun wa baha kii laay waxal sëriñ mu lay si mu Cheikh Seydi Mouhamadul Habib bu Seydil Hadji Malick mi nga xam ne baayam la ñu duppee ko si toog borom fa baxin baxin yaa sayyidi wa malatana man kaana xaatima asrihi wal baari baayam ma ko wax baayam góor si laay wax. doomi soxla loolu alaaj samba ñoo dégg ni ma sëriñ Habib mi toog. la yonent yàlla waxoon wa inni xiftu mawaaliya min waraa'i te wa kaanat imraati aaqiran fa hab li min ladunka waliyyan ragal naa su ma demee te aw ma doom ju gëm li ma gëm sama liggéey naax saay mu ne yàlla dama laa ñaan doom yàlla ni ko ban doom nga may mu ne ko yarisuni wa yarisu min aali yaquba waj'alhu rabbi radiyyan doom joo xam ne damay doom ju ni tiitaroo doom joo lay maam Cerno am ndax Serigne Habib mi toog donn na kër baayam donn na kër maamam lu ca sa bàyyi bàyyi yokku nga ko taaliba yaa ngi kenn dawul mbokk yaa ngi kenn poxuwul ndax sa jikko ju rafet kaa koo gën teewul mu baax ndax sa baax a jaaxal nit ñi koo gën a yaru teewul mu yaru ndax sa yar a jaaxal nit loo yaru yaru boo toggee Serigne Habib kaa xoolaat sa bopp du wax lu ñaaw billahi wallahu shahidun ala ma naqul li may wax yàlla képp ko su dong rek kese laa si jël seede doomi soxna yi ñoo dëggale seen xol ni ma waxal ñu sëriñ Habib Kandji mii ni ko ñun ñëpp ñoo ngi koy ndokkeel ci bisu maamam bii ku yokkul yaa wàññi bàyyi daara wax na ko bàyyi daara yàlla yàlla dolli wéram alaaji yàlla yàlla dolli wér bàyyi daara wax na ko ku yokkul yaa wàññi ku ñëw fii xam li baay yoroon xam li maam yoroon ba baam dem baay dem ñu jox la dono ma ni ku ñëw fii xam ni lépp yokku na dëkk baa ngi nii ziyaara baa ngi nii taaliba yaa ngi nii fii laa ñëw 92 92 gàmmu kër Mame Mbacké Tàngal xalifa ba ngi nii toog génn ca gàmmu ga ñëw fii ci sama baay bàyyi Cheikh Kanji nitu yàlla bu rëy ba cheikhun naqiyun taqiyun alimun wariun ma fekk fii bàyyi Cheikh toog fi ay fan ni ko Gàmbi laa jëm maa jaal Adama Ngom entre parenthèse maa ngi lay jaal Adama Ngom di ko jaal Jurbel yëpp ma ñëw fii bàyyi Cheikh ma ni ko Jurbel maa ngi jëm maa ngi jëm Gàmbi wax ma lam wax jox ma lam jox ma ciy faj sama soxla te ku bëgg ma fàcce sa soxla billahi alladi la ilaha illa hu fii la ñu ko bàyyi Cheikh joxe mu jox lu may faj soxla ku mu neex ak ku mu naqari sax tey ma faj sa soxla billahi alladi la ilaha la ñu ko bàyyi Cheikh joxe fii te dama ni du ma ko jox bàyyi taawut bii am déet ma jox loolu bàyyi taawut bii du ma jox loolu bàyyi taawam bii te taawam bii billahi lu ko bàyyi joxoon bi ma ñëwee yokkal na ma ko fii laa ñëw ci biir réew mi ku jàng firi waaye ku amul kilifa doo xam lu muy saf dama wax ne dañu ñëw fii indil la nuyoo njiitu réew mi ak yépp kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal yore li jëm ci wàllu réew mi kon yaakaar naa bu ñëwee ziyaare la nuyu la dafay mel ni ziyaare nañ nuyu nañ kilifa diine yi nga xam ne moom lañ fekk ci jotaay bi te yaakaar naa buñ leen naroon a lim dañ fi yàgg lool kon dañuy jël nuyoo gi ak ziyaare gi teg ko ci sa loxo mu jàll ci seen loxo ñoom ñëpp euh, di rafetlu nag di tamit sàkku ñaan ndax euh, bés yu mel nii ay occasion la chance la ngir ñu sàkkul ci ñaan réew mi sàkkul ci ñaan njiitu réew mi sàkkul ci ñaan képp kuy kilifa ku yàlla dénk nombo tànk ci réew mi euh, ngeen fan yi ñu ngi wax ay feebar yoo xam ne dugg na ci réew mi euh, loolu ku ci ne danga ci am responsabilité état bi lépp lu ko ci war mu ngi koy def waaye ñun tamit bépp kuy sénégalais am nga lu la ci war te lépp dafay dellu ci wàllu cet te yaakaar naa bu ñu nee cet diine lislaam dafa doon diine goo xam ne léppam cet la ndax euh, booy jàpp sax fi nga koy tàmbalee raxas loxo ngay def te tax na feebar boobu ñu ne kuy raxas say loxo di sàmmoo cell ak set yàlla mën na la ci musal kon gannaaw bu ku ne defee li nga war a def état bi def li mu war a def li ci des rek mooy sàkku ñaan ci kilifa yu baax yu mel ni ndax euh, yaakaar naa ne ak euh, ngeen suñu borom foo xam ne su ngeen weetee ñaan am nañ ci yaakaar bâche bi dafa doon bâche boo xam ne ñi ma jiitu wax nañ ko dañ ci am yaakaar ndax euh, li ko lal moo bare te wax naa ne néew nañu ngir wax ci waaye daal sëriñ bi ñuy sàkk bu baax a baax a baax ngeen defal ñu ay ñaan ba yàlla suñu borom continuer di fi def jàmm ndax yaakaar naa Sénégal li mu am chance la amul benn guddi bu ñuy toog te gàmmuwuñu fenn jàng fa ay alxuraan ñaan fa loolu dafa nekk chance rawatina fii ci njaareem kon daal euh, kàddu yooyu lañ ne woon bu ñu ñëwee dinañu ko yëkkati ci turu kilifa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñu yemal. di leen jéggalu ci toogaay bu yàgg bi. nee yal nañu yàlla boole jéggal ñun ñëpp. li ñuy ubbeekoo suñuy kàddu ci ñaan. mu ngi sakku ci mbooloo mi ñu jàng fatiha. salaatul fatiha wala salaat bu waay am ndigal ñu jàng ixlaas fukk ak benn tëjewaat ko salaatu ala nabi ñaanal ko ñu doon teew ci tant bi yàlla yóbbu leen barsax ku mel ni alxaaji Moodu Mbeng Baye Ndiasse Gueye nee boole ci suñu baay bi nga xam ne moo génn àdduna barki démb muy Amadou Saaru Lamot yàlla yàlla dafa leen jéggal ne képp ku fi doon teew rek lu jiitu te jiitu yàlla na la yàlla xare àjjana bisimilah. Cheikh Naam di yeesal sunu pas-pas. ci Cheikh na Matidiane Chérif di ñaanal yàlla sunu waajur yi jiitu muy maam Cerno Kanji ak i doomam yàlla leen yàlla yóbbu ca barsàqu Cheikh na Tidiane nee di yàlla bu baax di sant bokk jullit yépp nee fa tabaarakallaahu su ma waxul woon sax bokk yi ñépp xam nañ ne sëriñ bi ne xolam sedd na wala xelam dal na nee bés bu mel nii ku ko woote fii jamono ji toll ci tàngaay wi ci wéradi nee ci feebaru balaa boobu wàcc lépp nit ñi bàyyi ko cinq ba léegi ñu ngi toog nee wax dëgg yàlla waxoon na fi daaw ne defal nañ ma loo xam ne wala defal nañ ñu loo xam ne ñun njabootu maam Thierno fay leen dana jafe waaye dañ leen di bàyyi yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo mën a fay kon bokk yi fi teew yépp di bokk di wëllëre di ay bokki pas-pas sëriñ bi ne yàlla ñu leen yàlla fayal ne kaddu yi daa mënta ñàkk rek waaye li bi sëriñ Pape Kandji Baye Daara wax Baye as présenté délégation yi ne sàmba Samba Ndiaye jottali ko lépp mat na macha allah lépp la rafet na kon yàlla nañu ko yàlla muurloo ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp sëriñ Moulay si bu sëriñ Habib si démb la jiitu ñëw yàlla ak bés bii ku indi mu ngi ci dëkk bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu mag yi ñu nekkal muy sëriñ Mountakha Mbacké di xalifa général di murit ni ko laaj Samba waxee rek noonu lañ demee ak moom wax na ne bés bi saa yu ko yëgee nag yu maam Cheikh Ahmed Bamba doon jox maam Thierno ay baayam doon ko def ay magam doon ko def bi ko yónnee léegi ëpp na weer kon nag nee sëñ Muntaxa ñu koy nuyu ñu ngi koy ñaanal yàlla. yen bii mu yenu kër maamam ak naal bi mu am yàlla ko àggaleeg sagoom bu loolu passé ñu ngi nuyu sunu baay sëriñ Muniru Njëgeen mii xalifa alhaji Ahmed Baru Njëgeen sunu baay alhaji As Baro ñëw na teew ànd ak njaboot gi yëpp ànd ak sëriñ Moussa Njëgeen ak rakk doom yi sëñ Abdourazaq ñoom ñépp ñëw nañ sëñ bi ne yàlla leen yàlla fay ñu ngi nii fa tabarakallahu ne sëriñ Modou Mahfous Mbacké di ko gërëm di ko sant démb yónni na fi teraanga ju rëy ni ko sëriñ Pape Kandji defe jàpp ci gan ñi moom it defe na ko noonu kon sëriñ Mahfous ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ne sëriñ Lamp Mbàkke sëriñ bi ne ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la gërëm sa taxawaay ci njaboot gi ci dëkk bi yàlla yàlla jàppale sa kër maam ñu ngi nuyu suñu sëriñ Xalifa Ñas teew fi njabootu maam Ablaye Niass ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla nuyu Serigne Baye Mbacke Tandiang xam ne mooy borom kër gi maam Alhaji Mbacke Tandiang maam Thierno Kanji seen buntu kër yi nii la doxe woon ñu seq jàmm seq i wëllëre kon Serigne Mbacke bu teewee fii këram la teew sëriñ Baye Niass sëriñ Omar dañoo nekk ci ay yitte dañoo nekk ci ay yitte waaye sëriñ Mbacke bu teewee rek Baye Mbacke teewaalal na leen kon kilifa diine yooyu fa tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant njabootu maam Thierno gii xam ne moo nekk seen kanam yàlla ànd na wér ak yàgg sëriñ Pape topp ci gannaawam ñun njaboot gi yëpp rakk yeeg doom yi jarbaat yi sët yi ñoom ñëpp dañoo mobilisé wu taxaw ci gàmm gi kon yàlla leen yàlla fay yàlla barkeel leen comité organisation bi muy Baye Cheikh Kandji Sène xalifa Mbuub sëñ Baye Askañ Arona Diagne ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na yàlla leen yàlla fay yàlla jàppale leen ne monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu bu baax yaag préfet bii nga àndal di lay yóbbante ñu ci gouverneur ak membre gouvernement bi yëpp wax ji gàtt na waaye am na solo ñu ngi leen di sant ne CRD bi ngeen ko defee li ngeen waxoon comité bi yëpp daf ngeen ci li ngeen mën lu ngeen mënul nag yàllaa ko dogale noonu ñu jàppee ko noonu rek ñaan yàlla jàppale leen ne administration bi yëpp bi nekk Jurbel ñëpp gërëm nañ leen sant nañ leen ne Serigne Moustapha Guèye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ne Dame Diop it noonu lañ koy sante ci taxawaayam soxna Aminta Tall ne moom it na sa kasaalika naka noonu docteur Aline Camara docteur Soumaré ne fa tabarakallahu haaja ak ali Badara Baro ñoom it ñu ngi leen ciy gërëm di sant bu baax wàllu média bi rajo yi nekk biir Diourbel ñoom ñépp sëriñ bi ne ñu leen ci gërëm gis nañ seen taxawaay biñ jàppee gàmmu gi ba léegi communication yi avant premier yi débat yi lépp dañ koo def dañ ko yombal kon rajo RTS Moubarak Dunia Baol FM gërëm nañ leen sant nañ leen ne ci wàllu télévision bi Mourchid TV ñu ngi leen ciy gërëm daf nañ seen loxo bu baax ci gàmm gi ne maraajee nag ne sànq daf ne sama doom la sama jarbaat la ne bu dee ci wàllu Baye Talla Dieng ne Baye Talla magam la ne yaayam sa bàjjen la kon Mara sama doom la bu dee wàllu yaayam soxna Daba Ndaw sam papa nijaayama kon Mara cër yim am fii bari na jàpp na ko it ne Mara sëñ mi ne ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla ne xam naa fa tabaarakallahu dafa xaw guddi nekkuma ku tudd lit ne nga jéggal ko rek xam ne xolam tudd na la waaye mbokk yi waa Ndar yi waa Saalum waa Kees waa Kaolack ñoom ñépp gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal yàlla ne fa tabaarakallaahu sëriñ Afis Seen doom bay ma xujja seen moom it ñu koy gërëm ñu ngi koy sant di di gërëm Adja Jaaretu Sarr ne soxna Fat Seck ka ñoom ñëpp seen taxawaay sëriñ bi nee rafet na maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla ah monsieur le maire nag nee ci moom lay mujje nee mooy maire dëkk bi de moo war a dalal gan yi moo war a yeeri gan yi kon Alaaji Malick nee ñu ngi lay nuyu bu baax di la sargal di ñaan yàlla yàlla jàppale liggéey bi nga bëgg ci dëkk bi yàlla ci yàlla jàppale ne ah sëñ bi ne mbaa fàttewu kenn rek ne alaj sàmba ne yii ne na tudd ñëpp ne alhamdulilah rabbil alamin ne alhaaji galo di wëllërim galo jeng moom it ñëw na maa ko ziyaare bu baax ne xam naa suma ko mënoon damay jug kenn ku ci nekk fa nekk ma jox la loxo nuyu la gërëm la sant la ah am na ñu fàtte sëñ ne ko waa France yi ñoom Medinatu Rasul nee kon ñu gërëm leen sant leen nee xam naa ko fi sant mbay wala Cissé wala kamara ne boo paree invité na la reer ne xaaj ma dogal jóg di sunu jarbaat ne ba li ngi romb yëpp ay reer la préparé indi ci kër gi ne ko sant Cissé wala Camara xaaral reer ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp animation ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi ñaan yàlla nag Sénégal gii yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm ne suturé fii fi mag ngi bàyyi woon yàlla na ko yàlla saxal ne di ñaan ñuy rafetal kàddu yi nag di waddu kàddu yi moytu internet bi moytu vidéo yi yoo xam ne taalam réew ne xale sa waru koo wax waxuma laa magum jëmm nee mag ñi lu rafet rek lañ fi nekkee woon ba réew mi toll fii mu toll ne buñ nangu mu yàq suñuy loxo ku ko bëgg a yàq koy seppi teg ko bañ ko cee boole. kon fa tabaarakallaahu réew mi yàlla fi yàlla indi jàmm feebar bii fi nekk ñu ngi ñaan yàlla ñu ne am na lu fi feeñ waaye yàlla ko yàlla dindi yàlla yàlla fay feebar bi. balaa bu yàlla wàcce la waaye gouverneur wala monsieur le gouverneur mu ngi lay yëbbante ci son excellence président Macky Sall débat yi ñuy def ak séminaire yi ci balaa bi am na solo de waaye li ci ëpp solo na fexe nit ñaan ne na fexe nit ñaan mag kilifa diine yi ñaan mu boole ci imaam yi ñu ñaan ñaan rek moo fi mën a jëlee balaa bi te imaam yi ci lañ bokk koo xam ne bés bu nekk nga dajale juróom benn fukki nit ci juróomi waxtu dox seen diggante ak sa boroom nga sëlmal jàkkaarla ñoom yow sa mën naan buñ nangu sa ñaan waaye mbooloo mi nga jiite amal ci ñoom yaakaar boo jege juróomi waxtu yi ajjuma ñëw nga dajal lu mat junni nit jàkkaarloog ñoom wax leen nañ def nangam mën naa duñ nangu sa bos waaye mbooloo moom yàlla du la tas seen yaakaar mukk nee na ciy boole imaam yi ci la bokk mooy wax ak ñoom di jëf ñoom ñuy ñaan réew mi jëm kanam am na ñoo xam ne kenn du leen gannaawal te lii nag muy balaa bi ñaan ak sarax rek moo ko fi mën a jëlee. nee buñ financé ay milliards te fexewuñ nit ñi ñaan joxe sarax du fi jub nee kon fa tabaarakallahu yàlla ko fi yàlla jëlee yàlla ko fi yàlla jëlee jàmm ju sax sutura àndandoo jamu yàlla jamu yàlla yàlla nanga ko ñu génn àddina dem àjjana yàlla ko yàlla defal nee fa tabaarakallahu gërëm nañ ñëpp bokk yi taalibe yi wëllëre yi dëkkandoo yi sant nañ leen gërëm nañ leen nee fa tabaarakallahu nee laata sañ làmp di ñëw daa amoon bu buñ àggalee mu jox sama doom sëriñ Mahfous mu tëj ñaan yi ñu yeewee ko ba guddi ñu àggale programme bi gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp yàlla bi yàlla def jàmm ku fi ñëwoon yàlla leen la sàmm ba nga dellu sa kër yàlla bu kenn am ndox ci yoon wi yàlla ba am kenn jafe-jafe nga dem nag ak sa sago àgg ci sa njaboot asalaamaaleykum wa rahmatullah ana soppey sëriñ Cheikh Tidiane bu nu sàggan ci Babacar ana soppey sëriñ Abdou bu nu sàggan ci Babacar ana soppey sëñ Mbay Mansoor yi bu nu sàggan ci Babacar ana soppey sëriñ Maodo si bu nu sàggan ci Babacar Mbay Abdou bu nu sàggan mbokki taalibe Cheikh. bu nu sàggan ci Babacar. ana ñi bëgg sëñ Babacar Si. bu nu sàggan ci Babacar. mbay ku ci sàggan. ñu dem bala. mbay ku ci sàggan. ñu dem bala. mbay ku ci sàggan. ñu dem bala. mbay ku ci sàggan. ñu dem bala. ñu ci bii ku ci sàggan. ñu dem bala. ñu ci bii ku ci dun ñëw. ñu dem bala. ñu ci bii ku ci sàggan. ñu dem bala. ñu ci bii ku ci dun ñëw. ñu dem bala. mbay nañu wayloo te toppi ko. mbay ba mu jiitoo. ñëwul fi noonu. mbay la ko jiital néewal finum mbay dafa ànd ak mayam yu doy mbay si bu jiital ñu topp ca ñun bu nu jàqee ma jàlleno mbay bu nu tiitee mu wallunu mbay ba ko woowee mu wiy si la mbay bu nu jàqee ma jàlleno mbay bu nu tiitee mu wallunu ba ko woowee mu wiy si la waa baytul wilaayati mbay dafa jëmbam ci diine ji mbay moo rangoo xilaafa ji mbay moo rangoo xilaafa